jërëjëf Adima ci wis wi yi ngi wisal suñu palaas yi. Adima seen na la yàlla fay ci wis yi ngi wisal a palaas yi man man Pendo Ndikku. mbaa Ndikku eh ak yow eh ak Serigne Touba nag ma Serigne moom. ndax xoolal moom moo la wisal wisal ma wisal Ndikku <laughs> man Serigne bopp xaw ma kan waaye Adima si na ma booleeg moom de. ah Serigne Ba bu aayoon Adima du du du du jubal directement. ci balaa Adima balaa de wisal balaasam fekk na bitel bi jeex na. waaw mais moo tax Serigne bi aayu Serigne bi dafa jaxase. da ngeen may déglu rek. da ngeen may déglu rek ma ñëw. barke Allah ji fàllu Pendo. Pendo. aja ñëwal. yéen a ngi may dégg. ñëwal Pendo feccil nit ñi ne fas. maa ngi toog sama bopp bee ngi métti ñetti fan fecc ñu. da nga fasaat. aywa ana maam Ndiaye sama fecc bi nga tayee na. maam Ndiaye sama moom. maam def na ci levure. def na ci carbonate. yow moom. xoolal xam nga ajuma ajuma ajuma bi ma ne bi bi ma ne yëf yi làmb la yëf ma jékki-jékki sama bopp bi di metti ma jékki-jékki ni ki ah, waa mais bi lii est-ce que wóor na jékki-jékki Fatima jabar ma moom tam boppam day metti ma ne ko ah, pendo xam nga lu neex ba nga ne da ngay nuyoo ji ma bul nuyoo ji ndax Adji Mass wisal na la wisal na ma wisal na ndikku ñun nag xaw ma nag lu yàlla dogal waaye lu ñu mënti dara rek Adji Mass ni ko yóbbee ñu ma man damay nuyoo ji ndax sëñ ko wax Adji Mass ma ko jox kunkandee ma ko lu Kunkande jox na la loo xamul jaxase na palaat yi. Kunkande day xar géej gi ne ba mu nekkoon ni da ko reporté. waaw Adjuma xam nga lu ray Adjuma xam nga ray ba nga fekkee sama laaj bi tege nga tëb laaj bi. ma ko nga sàcc ko daw te Adjuma yow doo daw de da ngay tëb. sama xarit bi dama baalu kii balaa daanu ngir yàlla kii ay tànkam dëgërul ma mi jàll baalu. sama tànk yi sama tànk yi man ko ragal man ko bara ajimaa sëriñ bi waxu la waxu la waxu la bu laal ñu ñuul ñi <laughs> ah. ñu ñuul ñi soxna maama la yéen kay soxna maama yéen lay topp ana Fatou Ndao <laughs> ana Kiné Lam ngay la ñu ñuul ñi soxna maama ana Fatou Ndao ana Kiné Lam ñu Kiné Lam ak Soda Mama ñu ne bu ñu bokkoon ci jury yi dañ ñu Soda Mama sax Soda Mama sax jury wul ci maire yi am na benn maire boo xam ne diététicien la kooku loolu rek mooy liggéeyam pour xool togg. waaw yow maire ma tifli ma tifli ba mu doon ci xanaa. ñekkate man bu may wax damay tifli keroog laa ko xam. ñooñu duñu laal aromatique nga ñooñu duñu laal aromatique. ñooñu bu boo ci boo boo def ay mati gis nga man. ñekkate ma tif maire bi naan ba ra ra ra ra maire bi naan la ra ñekkate man naan la ratata ajumaas bi mel ne rajo këng këng ajumaas mel ne ku ñu pikir taxar naa. ajumaas xanaa xamoo man bi may def bi may def bi may def sama ay mati maji bi ma koy def dama ne suñu waa kër yi boo leen ko xollee ba pare nëbb leen kayit di jox leen ma maji bi kese. magi démb yaa moo bari magi démb yaa pour te dire que dafa am loo xam ne buñ ko gisee duñ ko lekk dafa am loo xam ne buñ ko gisee bokkul ci seen lekk te ñun Sénégal dañoo bëgg ba pare man xorom bi dama ko doon contrôler sama doom baay bi da doon tibb bu tibbee bu sànnee dama ko wax ay sa taxawaatal tuuti parce que ceeb ceebu ceebu ceebu keccax bu amee loo xam ne dafa am xorom yëpp doo gaaw a def xorom. waaw donc man dama doon ragal xorom bi xorom bi xaw a débordé. mais ñi ma àndal techniquement ñun suñu waa kër techniquement ay toggukat lañu waxuma toggukatu kaf nii de. waaw surtout maa ngi soog a wax dëgg bu xeet waaw fa indi traiteurs yi. pen noo fa indi traiteurs yi na leer. <laughs> Eh, yow mii la yow mii la. yow mii lii mbaxalu Saalum la sunu kër la jógee léegi léegi ni laa la xoolal lii xanaa kon xanaa kon bu ñu si foo nekk maa ngi nii may mbay ajumaas ba pare ajumaas xam nga lan moom la gën a metti ajumaas nga nekk ci caméra yi di la jël ajumaas wala ngay mar ajumaas ngay waasee lu la neex. ba pare di copp di ubbeeku ba pare ajumaas laata ngaa xulul ticket. maam Ndiaye tam waru woon raxasee foofu waru woon raxasee ginaaram yi foofu man nee naa ko maam jaay problème bi nga mooy waroo woon ñëw ba foofu di fa indi ki bi. c'est que moom Ndiaye ginaar yëpp set na mais poqataanu ginaar yi moo desat ay karaw poqataanu ginaar yi poqataanu ginaar ay waay eh confrontation sa di fu nit ñi jëm ba pare ba pare ba pare jiri yi dañoo xool man Mame Ndiaye Savon ak Ticket rek jëppe xam na ni ñi gën a rëy laa bi tike law bi dafa mel ni dañ ko mbéjatee mais tike kanam bi li muy xonk lan la. ba pare dañ ko mbéjatee. xaaral bi un deux trois mu ñandu un deux trois tike ñandu am na benn jury boo xam ne dafa ne si ti dafa soj un deux trois tike tike yi naan bas bas. xamalu ray tike lu ko trahir mooy yàppam beeku dafa dëgër bi mu ñoppatee ñoppatiwaat Adama Kande xool ko xam ne daggul mu mu découragé. <laughs> Adama Kande woon xamoo ne sa ginnaaw yàgg la encore xanaa xamoo jury bu ñu defoon ñëpp jigéen c'est iti forum bi rafet na c'est iti forum bi rafet na ñëpp jigéen problème day am moo tax <laughs> mën a xool togg ko jigéen parce que góor góor moo gën a xam lan lan lan lay xool ci togg góor moo ko dëgg la moom CNC iti foru CNC bi rek laa xamee ne du ma gagné parce que daf ma xool ni ma tu as trop chargé le te plateau ma bàyyi ko si sa plateau bi daf ko chargé animat loolu tam problème la <laughs> animat <laughs> aji maas jàpp kërëfet yëpp ba doo gis jën yi aji maas topp jur yi pep pep pep aji maas mel ku lekk rdv galax di ko corkaas aji maas naan mbep mbep mbep mbep aji maas day indi kërëfet yi aji maas kaba bi di mel ne garabu sàppooti nag aji ku doon dressing